mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam hasbunallaahu wa ni'mal wakiil asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp di leen nuyu nuyu bu sell te mooy nuyu lislaam di nuyub jullit di yeesalaat suñ jotaay muy jotaayal yóbbulu ndaw ji di jotaayal xam-xam di jotaayal fàttalikonte waaye di jataayal jàngale suñu dellusiwaatee nag suñu jataay yi weesu ñu ngi doon jàngale téere bi ñuy wax zaadu zawi taxallumi muy téere bu am solo dénkaane yu am solo yu ci sëriñ bi def ci képp kuy sàkku xam-xam wala kiy jàngale xam-xam suñu jataay bi mujj nag ñu ngi doon jàngale fi sëriñ bi di waxee nit kii ni mu war a fonkee xam-xam ni mu ko war a joxee ay yitte nga xam ne balaa moo jëm ci li muy sàkkoo xam-xam mu nekk ku set ku sell di màggal xam-xam fu mu toll di màggal ki koy jàngal xam-xam di wut ngërëmam ndax loolu dina tax sàkku xam-xam ba am barke kon tey ñi ngi ñëw ci bunt bi muy jàngalee lan mooy sàppi sàkku xam-xam sàkku xam-xam yan sàkku la moo tax mu ne faslun lii ab bunt la fii suuti talabil xilmi ci sarti sàkku xam-xam watu xat def na lim sittatu asiyaa juróom benn yëf tuwaddi du gog dina yóbbe li rasade jëm ci njub wala nga tuwaddi gog dina yeggale li rasade jëme ci ak njub min suruti talabil xelmi bokk na ci sarti sàkku xam-xam mu ne kon bokk na ci sart yi yi yi waral sàkku xam-xam ga nga am ko am gu yomb ci yow mu ne juróom benn yëf la juróom benn yëf la awwaluha ba ca njëkk wala aji njëkk seen sabrun mooy muñ xalal juuxi alwasat xiif gu digg doomu ka sabri lay sin niki muñu gaynde fahuwa moom muñ ga yuurisu nasab day sabab ak sawar ba njëkk kon ci sart yooyu mu ne mooy muñ muñ mooy bi ci njëkk kii sàkku xam-xam na mën a muñ waaye nag muñ ak xiif na mën muñ ak xiif kon nay takkoo ak xiif waaye nag waxuñu xiif gu métti goo xam te nii du mën a def dara na muñ muñ gu digg dóomu xiif gu digg dóomu lañ wax goo xam te nii dina tax mu sawar te du tàyyeel ndax rek gu ëpp kon muñ gu digg dóomu na mën a muñ xiif muñ gu digg dóomu xiif gu digg dóomu ni nga xamee ne gaynde mu xam ne rabu àll la mu ne na jël ci moom misaal ni nga xamee ne moom noonu la ñemee xiif ñema ñeme ak muñ xiif nee na na nga mel ni gaynde ci muñ ak xiif ndax gaynde mën naa toog diir bu yàgg di muñ ak xiif te du lekk mu ne kon loolee day tax nga sawar rek gu ëpp moom nelaw rekk mu ne wasaani ñaareel ba an yajlisa mooy nga toog fit taxallumi ca sàkkuwaay xam-xam ba kan nasri niki tan bipti xaa i ridal mi ci sàkku ngërëmal aji jàngale ja aji xamle ja mu ne ñaareel ba mooy nga sax ca fa ngay sàkkoo xam-xam nga nangu faa yàgg fa ngay sàkkoo xam-xam danga fa nungoo yàgg ni nga xamee ne tànkat noonu la nungoo yàgg ci sàkku lam bëgg nga xam ne moom mën naa toog diir bu yàgg di xaar mbir ba mu dee ba méddum doo di ko lekk nga xam ne lim yittewoo bu fekkoon deewu du ko lekk mu fekk bàyyi ko bam dee ba ba mu doo di ko lekk waaye moom du ñëw fekk deewu gut rek mu koy yeggale déedéet day muñ nee na nag yow mi sàkku xam-xam na nungoo yàgg fa kay sàkku xam-xam toog di muñ waaw ak tamit lépp loo xam te nii dafay gërëm ci diggante ki lay jàngal nga di ko def loo ko mën a defal rek ci loo xam te nii day topp ay ndigalam moom mi lay jàngal nga def ko ngir sàkku ngërëm loolu tamit lu am solo la mooy ñaareel ba mu ne saalisuha ñetteel ba xas mooy xër ala talabihi ci ak sàkkoom kam misli xarsin nit ki xërub kalbin xaj fii matlabihi ca la muy sàkku ñetteel ba nee na mooy nga xiir ci li ngay sàkku xam-xam bi ngay sàkku nga xiir ci mooy nga bëgg ko xiir ci jëm ci xam-xam ba nga xam ne da nga sawar lool sawar lool ci li ngay sàkku ni nga xamee ne xaj noonu lay sawaree ci buy rëbb nga xam ne ko koy jaral lu nekk mu jaral mu topp li muy rëbb topp ko fu mu dugg mu topp xir ci lool ci jàpp ko nee na nga xir xiree noonu ci sàkku bi ngay sàkku xam-xam nga sawar ci mu jaral la lu nekk ni nga xamee ne xaj noonu lay rëbbee mu jaral ko lu nekk raabixuha ñeenteel ba xel mun mooy lewet kamis li ni ki muus xaamisuha juróomeel ba mu ne kon ñeenteel ba mooy nga lewet ci sàkku xam-xam na nga lewet bañ a rëy bañ a weex nee na na lewet ba mel ni muus ni mu lewetee nga xam ne muus ku nekk xam na ne daanaka njariñam bëriwul mënulaa indil benn njariñ waaye teewul nit ñi dañ koy bàyyi seen biir yenn saa yi ñu añ desal ko wala ñu koy jox ay lekk loolu lépp nag lewet gi mu lewet moo ko nga xam ne amul la njariñ waaye lewet na lewet goo xam te nii mën ngaa ànd ak moom te du la wàññi dara nga fara ànd ak moom ndax lewet gi nee na na nga lewet yow mi sàkku xam-xam yor jikkey jikkooy sang waaw mën a ànd ñëpp lewet bañ a weex bañ rëy loolu it lu am solo la xaamisu xaa juróomeel ba idaamatun li sabri mooy saxal muñ xanil nisaa i walif soxna ya mooy jigéen ña assaarifaatil himm mi ñee aji soppi ay yitte ka xin xinziiri niki muñu mbaam xuux bilaa tahammu min ci lu dul di lu amul ci lu ko maanaam bilaa tahammu min ci lu dul def ci yitte nga xam ne defuñu amu ci yitte nga bañ cee am yitte mu ne saaku saako xam-xam bokk na ci saapee juróomeel ba mooy nanga nga fexe ba mën a muñ jigéen ñi jigéen ñi nga xam dañuy soppee yitte ne na nga mën na nga leen mën a muñ lool waaw ah, maanaam jigéen ñi ak bànneexu jigéen ak lépp nga muñ ko ni nga xamee ne mbaam xuux noonu la mën a muñee bànneexu jigéen mooy lu demee ak sëy ak lu mel xeet yu mel noonu ndax mbaam xuux lu dafay muñ lool lool nee ci bañ a ñi nga xamee ne amu ci yitte noonu na nga ci bañ a amee yitte noonu kii sàkku xam-xam daal na yittewoo sàkku xam-xam gi bu noppee nag. bu jëmee ci lam yittewoo suñu borom jàppandil ko loolu waaye jamono ji muy sàkku xam-xam nag na bañ a yàkkamti naan naa def nii rek gaaw balaa nangam wala xeet yu mel jëme ko ci jigéen wala muy bëri ay bànneexu ci jigéen ak yu mel noonu loolu dafay yàq xam-xam ba ndax loolu lépp day waral bu yàkkamti te bu yàkkamtee rek mën naa yàq xam-xam moo tax dañuy bëgg nga muñ ba sàkku li ngay sàkku ba noppi loola jëm ci loolu bu dee farata ja nga dem doxi ko mooy takk soxnaa yu mel noonu ay caaxaan moom taxut a wax ay caaxaan taxut a wax saa di su xaa juróom benneel ba sabrun mooy muñ ala zullin ci toroxlu abat ba faaw sabri ximaarin niki muñug mbaam fat lugu na ngeen sàkku bisi ci rasaat njub mu ne juróom benneel bi mooy muñ torox la kuy saaku xam-xam ne mën ak torox la ban di yittewoo ay col gu rafet ak ay lekk yu neex ak yu mel noonu na muñ torox la ndax saaku xam-xam bi muy saaku xam yu mel noonu ne na mën a muñ ba mel ni mbaam mbaam moom yooyu yëpp da koy muñ waaw yooyu yëpp da koy mujj nee na kon nag yow mii sàkku xam-xam bu yittewoo ak tedd nga gu ëpp da yittewoo ak toroxlu di sàkku la nga bëgg muy xam-xam ba muy nag na ngeen sàkku ci ji mooy yii mu la limal na ngeen sàkku ci ñoom ak njub waaw kon yii mu la wax yépp na leen di topp ci seen jikko yooyu rek ngir jariñu ci bañ leen topp nag yeneen jikko mu ne wa haasihi suruutu yii sart laa tuxassalu deefu ko am illaa bi kaddin ci lu dul wa jihaadin ak ak jihaad yaxsulu goog ko ak amal mu ne na nga xam ne jikko yi mu la wax muy juróom benn jikko yi yombut de kenn du ko am ci lu dul coono boo bëggee am jikko yi faw di nga daj bu yaakaar na ngay ñëw am ko déedéet coono la de di nga daj coono ju mit ak ak jihaat door di am jikko yu mel nii kon jikkalo yi jikko yoo xam ni boo ko bëggee am faaw di nga muñ yu bari coono yu bari ngir am jikko yooyu waaye dañ boo ko amee nag ñi nga xam ne am nga lu baax lu gën ndax li ngay sàkku yëpp mën nga koo yombal ci yow kon nag loolu mooy sàrt yi juróom benn sàrt yi nga xam ne moom la indi kon dañuy yemale foofu suñu kàddu euh, di wax yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp yàlla na suñu borom dolli yërmande dolli ak jéggalam ci ñoom nañ suñu borom may mujj gu rafet ñu ngi koy ñaanal suñu bopp di ko ñaanal képp kuy dégg suñ kàddu rawatina ñi nga xam ne ñi xaar lu ñu teewlu ci jataay yu bare ñu nekk ci biir réew mi ñu nekk bitim réew ñu leen ñaanal fi mu doxal ñu gudd fan ak wér xéwal yu bari te barkeel suturaal yu tey ak ëllëg barkeel Seydina Muhammad barkeel Sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul in uriidu illa al islaaha ma stataxtu wa ma tawfiiqi illa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh